ka cey dugg mooy kiy def sama coobareek baay bi nekk ci kaw bu bés baa ñu bari ñu ma wax borom bi borom bi ndax du ci saw tur lanu daa waxe ci kàddug yàlla ndax du ci saw tur lanu daa dàqe ay rab ndax du ci sëw tur lanu daa defe ay kéemaan yu bari ci kaw loolu dinaa leen wax dëgg ne leen musuma leen a xam sori ma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 bi yeesu waxee loolu ba noppi mbooloo ma daldi waaru ca njàngaleem ndaxte jàngal na leen ak sañ-sañ bu seeni xutbakat amul